الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا di soññi seen bopp di soññ mbokk yi nga xam ñoom la séqal liggéey bii xam naa daje daa mënut ñàkk waaye daje wër woon am sax ndax kenn ku ne xam na liggéey bii fi ak agsi ci ak fi la àggale ni ko bàyyi daam waxe léegi liggéey bi képp koo xam ne tàbb nga ci am at te pëstéef tax nga tàbbi ci sëriñ tubaa dong tax nga tàbbi ci boo léegi da nga gis loolu liggéey bi jariñ ñun am nañ ci firnde yu leer nañ ñi ndax yaakaar naa at mu nekk gis nañ ak yokkute ci liggéey bi ñuy liggéey kon nag ñun jekk nañ bu yàgg sëriñ bi yàllantee ñu noonu suba la mbale mi nga xam kon jekk nañ bu yàgg comme jekk nañ nag nan ñaan mbokki taalibe yi itam wóor na ma ni ma jekke ni lañ jekke ñoom ñëpp a jekk fu ñu leen joxoon rek ñu jëm foofa xamaa li ñu ci dolliwaat moom sëñ bi wax na ko léegi muy wàllu sëfoor si ak ñi nga xamante ne ñooy yor oto yi yéen yor mbooloo yi nan fexe ba déggante ngir jëmmi yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa ku ci yor mbooloo moo xam ne benn oto bu ndaw moo la arrangé bàyyil jël oto bu ndaw ku ci yor mbooloo moo xam ne oto bu mag moo baax ci yow ñu jox la oto bu mag ndax liggéey bi gën a gaaw ndax liggéey bi yaakaar naa ne tardement bi ci ëpp mooy ñu yor mbooloo dëgg-dëgg dañu leen di jox oto yi suñu leen jox oto yi liggéey bi gaaw te ñun fekk liggéey bi àgg duñ wàcc sëriñ bi xam ne lii ma wax ñun bu doon am fukki fantam bu sëriñ bi néew jaajëf rek amatuñ soxla ci suñu kër amatuñu soxla ci suñu place amatuñ ci lenn kon nag lépp luy gaawal liggéey bi nañ fexe ba loolee ñun ñëpp ñu bokk ci taxaw kon ñu ngi sant ñëpp sëriñ bi kuréel waajal mbale màggal Tuubaa jekk na bu yàgg jekk na bu yàgg ci fàggu tiifam ren wut nañ ay mana jënd nañ ay mana jënd ay bool dutuñu abbi bool dutuñu abbi mana ci lépp ci mbale mi dong lañ ko jële kon mbale mi ñu yëg nañ ci ak yokkute dañ naan togg di abbi bool àppatuñ kenn bool àppatuñ kenn ay cin liggéey lañ ay cin yoo xam ne kuréel waajal mbale màggal Tuubaa dong ko tax a jóg kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala kon ni ñu ko baaxoo waxee rek nuyoo bi mu ngi jóge ci Seex Mahamadul Muntaxa mi boroom liggéey bi di boroom diggal li di Seexul Xaadim te naka jekk muy sunu kilifa di sunu jëwriñ di sunu bunt waaw ah, ci liggéey bi sëriñ Tuubaa bi ba mu ko séqeeg bokkam yee itam rawatina léegi bi mu jiitee liggéey bi sëriñ bi kon mooy suñ lépp di lépp liggéey bi mu jaarale ndigal li ci sëriñ Basiiru may si ci noonu bu ñu koy yëkkatee njëkki sëriñ Cheikh Jëmb ak seexi sëriñ Tuubaa yëpp sëriñ Cheikh Jëmb jot li waat na ndigal li ci njabootu Cheikh Ibra gépp barki démb rek sëriñ Moustapha Mbar mi ngi may xamal ne leetar yi dem na ci këri Cheikh Ibra yëpp kon naa ngi jottal nuyoo bi ci Cheikh Sëriñ yëpp bàyyiwuñ kenn naa rek di soññewaat ci liggéey bi liggéey bi nag sëriñ Moustapha Mbar am na lu wax keroog daanaka jërëtutoo soññee ndax dafa mel ndongo day weesu dal baa mbir boo ko defee fukki at ak ñaar fukki at ak ñett war nga xam war ngaa xam lam la jëriñ war ngaa xam yoon wa war ngaa xam waxtu wa war ngaa xam doxin wa nga xam nañ ni ñu ngi koy xam baax ndax at mu ne mu gën a yomb ca daaw ja te loo xam gi ak pas-pas bi moo ko waral te noonu ko gis bu baax kon nag ci turu sëriñ bi maa ngi soññaan rek bëgg nu fedd laxasaay ndax mel na soññee moom mosu jóg ndax ay ca góor moom yàggees na ko wax ci toolu sëriñ bi góor ci waaroo yàggees na ko wax ci toolu sëriñ bi kon nag ay ca góor rek góor ci waaroo nan ko àndaat nan ko daan àndee defe ko nin ko daan defe bu nu fa jógee gisaan njëriñ lan daan gis ndax baat bi ñëpp di wax njariñ ñul mbale mi nun ñëpp xam nan ko lan ci doon dégg mu bàyyi ko ci sëriñ bi ak ñooñ sëriñ bi ak leen ciy gisal sunu bopp waxtu mu ne koy gën a xam mooy nun ñëpp kenn ku nekk yàgg ngaa sóobu ci mbale mi àndaale ci ay yitte ba mbale ma jàllee mu yéwén yéwén nu rafet ci barkeb sëriñ bi waaye ci barke mbale mi noonu ñu wax léegi mooy li am sëriñ bi yàgg na defar mbirum góor yàlla ci buub loo ko wala root loo ko kon bu ñu tànnalee mbale mi dañ ñoo tànnal yoon ba gën a gaaw te ëpp njëriñ te loolu bu barki démb rek bi may ci wax sëriñ Muntaxa di ko wax ne ko waxtu wi da daa jot ma doon sàkk ko yeesal ndigal li ngir ma man ko jottali dafa ma ne loolu kay waxuma yeesalal leen ndigal waaye seen ndigal lu ngeen jagoo la seen xaas la seen tawfeex la kon na ko jàpp seen fukki loxo te lépp lu ngeen ko fonk na ngeen koy gën a fonk lépp lu ngeen ci daan fas na ngeen ko gën a fas lépp lu ngeen ci daan def ni ngeen ko yokk ndax de tawfeex ju rëy la ci yéen ndax ñëpp ko waroon bokk ñëpp ko bëgg waaye yéen lañ ko jagleel kon loolu doon sëkk ab soññee ci noonu ko ginnaaw suñu tawfeex la nga bëgg suñu fukki loxo parce que yéen a jëriñu tawfeex ju wér wér la ju rëy a rëy la ndax daanaa ko wax fii tawfeex mi ngi tàmbalee ci suñu boroom bind la bind ay mbindeef bind ay do bind la ngay doomu aadama te mu wax ne doomu aadama moo ko gënal ci lu mu bind ñan tawfeex la suñu boroom defaat nun nu bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam janeen def nu bokk ci taalibe Sëriñ Tuubaa muy janeen tawfeex suñu boroom dimbalim nag nu dëkk ak Sëriñ Tuubaa ca dëkkam bii muy janeen tawfeex suñu borom dimbaleenu nag ci biir dëkk bi Sëriñ Tuubaa bi seetal ko du sunub cër wala daa niroog la ku baax ko waxam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar ay tànnif lan yu jógee ci ay tànnif yu jógee ci ay tànnif muy tànnif yu bëree bëri ne loolu cant yàlla rek moo ci war a sant nag daanaa wax ne dañ koy fas ci xol tudd ko ci làmmiñ jëfe ko ci ay cër kon nan fer li pas yi te dugg ci làmmiñ mooy ay cër nu fasoo ko jëfe gi ci cër mooy nan ko jëfe nan ko daan jëfe ba weesu fan ci daan toll ci waajtaay kon noo ngi woo ñëpp ñoo ngi soññ ñëpp ni ma ko daan waxe fii nag kenn ku ne na nga daan jàppee xam nga ko mooy ñu ci dëkk bi waa regroupement benn yi wax nañ ko léegi ñoom lañ daan njëkk a soññ ndax wax naa bale bi ay nit ay génn bale dañuy soxla jumtukaay yu sew yi bale yu ñu noppee dañ koy def ci oto yi oto yi tuuri ko kon benn yi tuuri mbalin bi dañ ci yor liggéey bu réy ñu wax leen ñu soññee waaye ñoom itam dañ ko seq mooy ñi moom oto yi ak sëfoor si waaye ñoom ñëpp dégg naa ne son soññ nañ leen léegi leeral nañ ko façon googu rek mooy li ci am solo kon noo ngi sant waa regroupement bi leen sàkku ñu soññee bu baax a baax ci biir njaboot ga liñ ci wax déggaale naa ko te loolu lépp xam leen am nañ yéene luy doxal liggéey bi rek la noonu yi la ñuy ànd soññee bi incha allah ñin ko daan seqal ñëpp ñu leen soññaat waa Touba ci kanam ñi nga xam ne danoo bokkub liggéey noo bokk ay jëwriñ nooy fabandoo di tegandoo ñoom du ma leen sañ ndax dañ koo bokk réunion bii waroon nañ fay yónnee si dama jàpp ne ndaw yi dañoo tequ waaye léegi rek sëñ Abibu ak sëñ Abdulaat ak Abdou Fatah noo nekkandoo kër sëñ Muntaxa ma leen ne tey dañoo am réunion waxoon ne ne diw ak diw ñoo cee ñëw xam naa dañoo teq kon waaye noo bokk liggéey bi ñoom maire dafa am wet gu mu féetewoo gu am solo te loolu carburant bi tax cabi camions yi mën a liggéey ñoom moo mairie moo ko daan féetewoo te dinaa ci egsiwaat ne liggéey bi yàqali ko ak ni kenn ku ne war a yokkee loxoom teneen bi liggéey comité bi nga xam ne noonu dañ ciy ab bànqaas comité ba sëñ Sa Bass jiite ko sëñ Ousmane di jëwriñ ja ñoom waxtu wu nekk dañ leen di wax fi ñu toll ci wàccaay ndax noo ko war a ànd da liggéey bi sotti ñoom nag ñoo ne dañoo sàkku na doon ci liggéey bi fii li jamono toll noo ànd kook moom loolu donte sàkk wuñ ko woon loolu xam na ni sunu liggéey la bokk waaye ñun ñëpp nu xamandoo ne daa yaatal liggéey bi da koo diisal te ma jéem a ŋàcc ndox ak jéem a sëkk fas yéene lépp lu nu ci man ko def waaye ñi ciy war a jàppit nañ ci jàpp nañ ca nañ ko nañ ca war a jàppee mooy luñ ñu daan def ñu yokk ko mën noo dimbale ba nañ ci bëgg a duggee duggee ci noona dëkk bi moom ku xam na ne ñaan ko nangu rek ci la ñuy dox ñaan ko nangu yi mi ngi daje tàmbalee ci ba ko sëriñ bi sam sañc muy génn jëmmam ci képp dem ba sañc kër ay murit ñëw fi dem ba sañc ñeenti kër kër gu ne ab murit ne fa dem ba tukki bàyyi fi dëkk bi dem ba ñëwaat jaaraatu ci dëkk bi waaye lam doon ñaan bi mu ko sanc ak lam doon seet ba gis ko fi ba tax mu sanc ko te muy barab boo xam ne barabu xéewal goo xam ne ci àdduna lay tàmbale jëm ajjana ci barab bii la ko sàkko fi la amee loolu moo ciy feeñ feeñ ci dëkkin yi feeñ ci ni nit ñi ñëwee fee ba tax fi dëkk bi àgg maag dëkk bi diir bi ñu ko sañceeg léegi muy téeméeri at yu tegal tuuti ñu ne mooy ñaareel dëkk ci Sénégal Sénégal am ci dëkk yu am junni at am ci am juróomi téeméeri am ci am ñoom ñeent téeméeri at jóg romb leen weesu leen bu yàgg seen morom ci dara ñaanu borom dëkk bi ak lu mu liggéeyal yàlla ak lu mu jaayante yàlla ba yàlla defal ko moo andi lii gis nga Touba gii loo gis ci barab ci xewal wala lu rafet wala lu yéeme jàppal ne mën naa am Touba maam kay jumtukaay yee dolliku xéewal yi di dolliku bañ mën a ànd ak moom dëkk fi te du yàq dara waaye léppay dolli pour lu baax am ci àdduna ñu a toog dañ xam ne dina ñëw Tuubaa gi te loolu day dégg naa ñaari xisa te benn bi sëriñ Falloo ko wax bi ci des sëriñ Basiiroo ko wax foo gis nga ci àdduna xamal ne fee ko tax a jóg fam jaar dafaa jaar rek dañ Tuubaa taw fexe dem dëkk fi nan sant sëriñ Tuubaa nan sant Sëriñ Tuuba nan sant Sëriñ Tuuba te jëfi cant gi nag mooy nan ko seetalal dëkkam bi balaa gan ñuy ñëw ni ko alaaj Bara Fall kon noo ngi woo ñëpp dëkk bi ku fi nekk te yëngu ci dara la ngay yëngu nga gëm ne barkeb Sëriñ Tuuba moo la ko jox na nga ma att na delloo loolu ci dëkk bi ci bis bi ci wàccaay bi ci mbale bi kon mbooloo yëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi génn yor jumtukaay yi bale yi wax nañ ko léegi waa sareet yi faaw ma beral leen ab woote dañoo soxla liggéey bi te kenn gënul leen jariñu ci barkeb Sëñ Tuubaa ci dëkk bi ndax ku xam na ne ab sareet la mënoon a am ci àll bi ak sareetu Tuubaa li mën a am ku xam na ne bokkuñu jegewuñu kon xéewalu Sëñ Tuubaa kenn gënu leen ko yëg kon ma la ñemee ñëwee xam nañ ne nit ñi liggéey sax ko bëgg a def da nga dugg dara liggéey mën nañu fexe ba nit ñi dem liggéey waaye dañuy tëj marché ba nit ñi nañ duggi waaye ku yóbbu nit ñu liggéey nga yóbbu sa saret ci biir liggéey ba képp ku ko def boo amee benn saret bu déwénee da ngaa fukki saret lu ci waaye daf da nga gis loolu la jariñ balaa déwén kon kenn ku nekk fa nga nekk jëfe fa te fa nga jëfe fa la la sëñ Tuubaa fekk fayee la kon noo ngi woo ñëpp dëkk yi wër dëkk bi itam nan ko daan wax dëkk yëpp dëkk sëriñ Tuubaa lañ kon dëkk yi nga xam ne sëriñ Tuubaa dafa dëkk dëkk loo ñañam ñu wër ko dañ xam ne fu ci waaye mën a nekk ci biir dëkk bi sëñ Tuubaa nga nekk kon noo ngi woo ñëpp am la ko ci Daarul Musti Mesere Madina Touré Mbacke Bawol waa Mbacke ngi fii benn dëkk bi la dëkk yi di Ndindeeg Tindoodeeg yu demee noonu moom ñoo Gédeeg Baxdaad dañoo penc mu xaw a gën a sorante waaye lépp moom biir dëkk bi la moom waaye dëkk yi wër Touba yëpp Touba Fall ba bañ jaaree mag lépp ci Touba la bokk ñëpp nañu wàcc ñëw ci liggéey bi bu ñu ko defee dana yomb lool te bu ñu xasee ñëw it lépp luy tax mu set sell noo am ngërëm nan ko def dale nañ ba tàyyi ma man damay dem ba yërëm nit ñi ci ñaari fan bu ñetteel bi di wax sëñ Fallu sëñ Modou Aminta ne ko teenoo yeewee waaye day wax ne duñ dem di fi bàyyi dara nan nag bu lépp sotti te nan ko daan defee bale ñaari fan ñetteel ba ñu dem bay bàqee ñëwaat nag ton tàng ndox ak fëkk sëkk nan xam ne loolu lépp la ñuy def waaye baat bi ñu daan wax rek buñ bàyyee sun itti ngir sëriñ bi buñ delloo nag ci suñ bopp fekk sëriñ bi defal na ci suñ bopp lu mënutoon ci suñ bopp kon nan bàyyi suñ bopp ba defal sëriñ bi li bëgg kon nag waajtaay waa ngi noonu yoon waa ngi noonu ba ci bitim réew fu taalibe bi nekk ma koy waxee nekk Japon ka nekk am fu taalibe bi fanaane xëy julli suba di ñaan yitteem barke sëriñ Touba la koy kon na koo gëm ne sëriñ Touba la dëkkal fa mu nekk kon sëñ Tuubaa bu ñu koy war a dëkkam bi foo waaye nekk nga gëm ne am nga ci wàll dafa ko ku ci jàppit sëñ Tuubaa jàppale la kon ñu ngi woo ñëpp ñi nga xam le nag kon bis bi dañoo jàpp ne talaata yi suba ji bu dellu si day doon seenu bu njëkk ba mën naa doon benn fan mën na koo bañ a doon waaye alxames yi nga xam ne moom faaw mu dugg safar doon benn mbaa ñaar doon 9 septembre lañ bëgg ñu tàmbali ko liggéey bi incha allah loolu nañ ko yóbbaale ku ku waaye dem na ko yóbbaale ku soññee na ko yóbbaale waaye di wax na ko yóbbaale alxames 9 septembre benn doon faaw ci doon benn wala ñaar ci lañ fas yéene tàmbali liggéey bi kon ñoo ngi jottali ñoo ngi dalal waxal rek soxna su ñoo ngi gën a santaat di ko gën a ñaanal moom itam suñu boroom defal ko fanu gudd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam gépp muy soxna yi lu gën a mën a ànd liggéey bi ñoo ngi koy ñaanal ñëpp yàlla na ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin day ci tawféexi sëriñ bi ba mu lépp yomb lépp lépp lépp yaatu lépp barkeel mu day ci ngërëmul sëriñ bi jërë ngeen yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi dégg ngeen ni ko sëriñ bi waxee soññee bi bàyyiwul fenn ñëpp la soññ muy soññee bu yaatu waaye damay waxtaan ak menn mag ci fan yi mu ne ma mu ne ma sëñ Mbacke Bousso de xam nga lu tax mu sànc Kede ma ne ko ah déedéet foofu ma ko de mu ne bi muy sànc Kede de gi jigéen fu mu ne dafay sànni la mu fay yor te ma bañ mu taxal Touba ma tax ma dem ne loolu sëñ ba dànn barab bi ndax su ma fi nee sama waa kër ñi mën nañ fay sànni dara damay bañ ko taxal foofu moo ko tax a dem Kede sëñ bi xoolal kooko fa mu nekk rek kon ñun ñi dëkk ci biir dëkk bi mag moo xam ne liggéeyal na sëñ Tuubaa doon na sëñ Tuubaa lépp mu ne ragal waa këram jël am mbalit indi ko ci ëttu sëñ Tuubaa bi rek moo ko tax a sañ ci gede ndax bëgg sari barab bi waaye waaye ñun war nañoo góorgóorlu de kon sëñ bi ñoo ngi lay ñaan baax yàlla na daje ngërëm sëñ Tuubaa liggéey bi yàlla na yomb ci nun yàlla na nga def ci taalib yi ak wér defal leen xéewal goo xam ne balaa bis baa ñëw ñoom ñi kenn ku ci ne mm-hmm. dana mën a am lu mu indi ci liggéey bi am lu mu bàyyi te yàlla mën na ko yàlla na ko defal njaboot gépp ñaan ci barkeb sëñ Muntaxa ñii ñëw nga xam ne duñ noppalu boo wootee ñu wuy si lu mu guddi guddi ñëw duñ tayal duñ yàkkamti ñaanal ci barkeb sëñ Muntaxa ñoom kenn ku ci ne bu ñëw ci liggéey bi na am lu mën a yore liggéey bi am lu mën a bàyyi këram loolu yàlla mën na ko ñaanal ko mbooloo شكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي